Fidèles républicaine dafa bokk ci élection yi euh, weesu ndax mën a am euh, ay ay ay li ñuy wax ay conseil ci communes yi ak ci département yi loolu nag yàlla dimbal nañu ba fii ci Thiès ca Kolda ca Mbour ca Matam ca Kaolack te Nioro Foundiougne Morolan mais sunu responsables yëpp nek lañ fay conseiller am nañ fo xamné am nañ fa juroom ben conseiller maa tam ñooy deuxième fi ñaar fi benn etc donc élection yi nek woon rek Thiès naa man ma nekkoon Thiès di xëjo mais aussi am na suñu yeneen responsable yu nekkoon ci biir réew mi di xëjo yalla def na ñu fal leen ay conseillers fofu ñu nekk fi nak ci Thiès nga xamni ma maa jiite liste bi

léegi nag boo xoolee Thiès ak feneen nga xam ni ñu ànd ak Macky dañu ñàkk élection yi ndax suñu junni voix yooyu suñ ko yokkaloon benn bokk yaakaar mu gañe suñ ko yokkaloon Abdoulaye Dieye mu gañe li muy wane rek mooy waaw ah, suñu président de la république buñ jëmatee élection yu mel nii Je encore, Au lieu, nous avons candidat, Parce que vous avez un rapport. Il va dire 10 mois pour le ou 15 mois pour le Au lieu de faire nous organisons une élection primaire. Parce que depuis 2016, nous suis le président de la République. Le mouvement présidentiel, vous faites un terrible, il faut que je qui ne manque, qui ne manque, qui ne manque, une élection. primaire. Vous avez fait une élection primaire. Qui a fait une élection primaire mo gagné ni ci dess ñep rangé wu ci ci ginnaaw lolu moy tax mouvance bi mëna am ben candidat waaye nag boo bëggee jël ben nit rek dal koy parachuté ne nekk seen ñu mel ni dañuy lank lolu moy li nga xamanteni bi man mom lay digal euh, la mouvance présidentielle ci élection législative yi sax il faut ñu organiser ay élection primaire suñ ko deful liste yu bari euh, li ñuy wax liste parallèle mais day day té lolu da fay néewal doole mouvance présidentielle kon il faut ñu bàyyi euh, di tan à part de rapport wala ay études yoo xam ni mën ko biaisé té tan bi ñu teg ko ci yoon yoon moy ñu dem élection avant législative yi ku gañ ñi ci des ñepp rangé wu sa ginnaaw ñu wax aussi ñun parti la ñu ré yore ah, ñu bëgg ñun wa Sénégal républicaine ci 46 départements yëpp ñu préparer élection yi yokk liggéeyu massification fi ci Thiès yokk aussi ci réew mi parce que xam ngeen ni ñun Thiès ay mujjee avant ñuy ñëw Thiès def nañu Dakar ba Kédougou Dakar ba Matam Thiès lañu mujjee parce que comme fi lañu dëkk dañ ne woon fi lañuy ñuy mujjee mais parti la ñuy yore et c'est un parti implanté au niveau national te élection yi di ñëw élection nationale la ndax ndax da ngay soxla baatu waa Casamance soxla bu waa Ndar bu waa Thiès ak bu waa Dakar kooku aussi ngeen comprendre ko du nekk élection locale. d'ailleurs incha allah ci mois de avril bii di ñëw ci fête avril yi daañu organiser sunu troisième convention nationale maanaam responsable yi yëpp au niveau national daañu daje fii ci Thiès ñu def ñaari fan ñu wax législative yi nan lañ ci taxawee ginnaaw aussi. gouvernement bi ñu waaju tabb li ñu leen di digal moo ñu toppatoo xale yi ndax xale yi dañuy am problème stage dañuy jàng ba génn waxuma sax liggéey dañuy jàng ba génn am problème stage chômage bi bari na taxawaalu bi bari na ñu si bëri dawar jakarta la def le gouvernement bi toppatoo xalé yi nañu fexé ñi wara des formations, Nous def formation formation des ñu nous ñu am liggéey wala nous ñu nous ñu leen ndax mu ndax suñ ko suñ ko opposition bi lay dem parce que xalé bu amul Nous espoir pour manipuler le mu

voté contre nguur gi ñoom sax xam naa ne yenn maire bu ñu leen gisee ay réer leen di jàpp ñoom ñi xam ñoo leen voté ndax dañ ndekete kii mooy maire bi waaw donc mais loolu li koy indi mooy xale yi taxawaay bi xamante ni nguur bu rafet taxaw taxawu ko te tant que loolu amul bu ñu demee élection dañuy problème dañuy am problème ak xale yi nañu fexe xale yi liggéey nañu fexe xale yi ku ci war a stage nga am stage ku ci war a am liggéey nga am liggéey

nguur gi euh, ñu gis ci seen bopp parce que réew mi ñoom tam ci lañu bokk maa leen di gërëm di sant.